فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد المكين وعلى آله وصحابته وخير خديمه وأمته أجمعين mbokki jullit yi mbokki taalube yi mbokki Touba Guendé yi njabootu islam bu nu ngi leen di nuyu nuyoo bi gën a tedd te gën a rafet ci jullit di wax asalaamu aleykum wa taala wa barakaatuhu ñu ngi sant yàlla su bu baax ci ni mu gën yelle di julli ci yanantu bi alayhi salaatu wassalaam di jaayantewaat ak Maulana Cheikhul Khadim liggéeykatu yenant bi yàlla na ko yàlla dollee gërëmal di ñaanal Cheikh Mouhamadul Moustapha mi al khalifatul am li taifatil muridiyya yalla yalla yàggal ko lool ci sunu kanam te dolli ko sàmm dolli ko wér dolli ko kàttan wàññil baas bi tuuti rek di ko ñaanal sunu jàmbaar jii ci biir kër gi di sëñ ibrahima xujja mbàkke ñu toogee jataayu cheikh mu nun yàlla ko yàlla doon li wér te yàggal ko lool ci sunu kanam di nuyu kilifa yi ci dëkk bi yëpp bu nu bu ñu nuyu borom dëkk bi sëñ Ibra Xujo mu yóbbuwaale ñëpp waaye di beral nuyoo sunu soppe bu baax di soxna maam Faati Mbàkke di doomi Serigne Basiiru Mbàkke mu Serigne Moodu Xabbaan ngir ñu fi déggee rek la daal woote ni nañ ko taxaw bu baax ndax damaa sori nekk ca soow noo soxna su baax sële di soxna Ndaagu Guèye yi doomi Alaaji Seex Guèye di doomi itam soxna ma Anta Mbàkke mu sëñ Moodu Xabal di nuyu daahira bi ak ndaw ñi ñëpp di ci jiital sëriñ Saliou Dieng nu nuyul lu ñëpp di nuyu sunu soppe bii Serigne Mamor Diop di ko ziyaar di nuyu kilifa yi dëkk bi bàyyiwuñu kenn di nuyu soxna yëpp di leen ndokkeel ci guddi gu tedd gii dëppoo ak ci aki tubaab bis bi Serigne Saliou génnoon at mi le 28 décembre. bari na tey télévision yu def ay jataay ngir fàttali jikkoy Serigne Saliou ngeen tànt ci tànt bu am maanaa bii woolu ndonga gu ngeen yaakaar mu waxal leen ci jikkoy sëriñ Saliou yi nu mën a roye ci moom ngir ñu mën a defaru ci bis bi ngir fàttali ko dolli ko ñaan waxtaan tam ci borom suuf si di serigne ahmed ndumbe mbake khaba Opaler mooy leeral Serigne Mouhamadou Mbacke ñu gën koo miin ci Serigne Mouhamadou Dumbe Xaba ñu ngi leen di sant nag bu baax bala ñuy door waxtaan bi ngir taxawaay bi ak bëgg gi lu baax nekk ay ndaw mënoon a xalaat leneen. ngeen boole seen bopp ci guddi gu mel nii ni dañuy fàttaliku Serigne Saliou dañuy sant sëñ Mandoumbe Xabaan ñu ci boole lu bari ci ndaw ñi seen xalaat àggul fii waaye seen jëf ji dugg na ca innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum hudan wa rabatna ala qulubihim iz qaamu fa qaalu rabbuna rabbu samawati wal ard ñooñee sunu borom wax ci sóotul kahfi ngir seen taxawaay bu rafet ba ba tey ñu leen di fàttalee yàlla di màndargaal jeunesse bu takku te gëm yàlla ba dawkat bi leen topp sax nelawandoog ñoom ci xunt mi ëllëg aljana rek seen jëf ji tàbbi na ci loolu seen jëfi tey ji tàbbi na ci borom dëkk bii nga xam ni sëriñ Touba ko defal lépp Serigne Ahmadou Ndoumbe Mbacke Xabal mooy mbokk Serigne Touba ci wàll yépp Serigne Ahmadou Ndoumbe Mbacke Xabal Serigne bee def lépp ci moom Serigne bee ko tarbiyal boppam Serigne bee ko yaral boppam jàngalal ko boppam gërëmal ko boppam di dunde mbayam daa koy wax léegi sëñ Maam sëñ Tuubaa ni mu sàmmoo fi mu toll boroom ku mu wóolu ci li muy dunde moom njabootam sëñ ma dubbe rek fekk na ñu bokk ci wàll yëpp ndax maam Maaram Mbàkke képp la moo leen meññ ñoom ñëpp dañ bàyyi rajo benn place maam Maaram Mbàkke moo leen meññ ñoom ñëpp danga nan Sayer Soxna Bousso ak ahmadu Soxna Bousso Mbacke Sayer Soxna Bousso ahmadu Soxna Bousso loolu lu ko gën a jegeñ amul ñu bokk maam maaram Sayer Soxna Bousso Seydou Seydou Madoumbe ahmadu Soxna Bousso noonu moom soxna astawaalo maam jaara xaadim rasul sayid saydu sëñ ma numbe kon ñoom ñaar ñoo bokk lépp ci meen tam ñoo bokk ndax cheikhul xadim maam jaara buso maam jaara buso soxna aysatu waalo mbàkke soxna aysatu waalo soxna ndumbe ñang maam danu ñang meññi ko nga dellu ni sëriñ ahmadu mbàkke mii borom dëkk bi ñu koy wax sëriñ ahmadu dumbe wéy juróomu jigéen moo tudd soxna dumbe ñang comme olof daa mën a yàq lool la ñu naan sëñ ma dumbe waaye muhammad mooy turam comme sëñ ko baax soxna dumbe ñang jur ko baara anta ñang jur ko moom mu delluwaat ca maam danu kon ci wàll yépp mook sëriñ Tuubaa bokk ñoo bokk meen ñoo bokk gañ waaye mu jaay lépp jënde ko taalibe pasteefu sëñ Mandoumbe amul ñaar sëriñ Saliou radiyallahu taala anhu mi ñuy fàttaliku ndax daan wax ni taalibeeg Seex Rafaa ma doy pasteefu sëñ Mandoumbe ma doy ci laay roy daan ni sëñ Mandoumbe de bokk na ci ñi may roy ci biir ci àdduna bi ngir pasteef rek moo ko may mësta kooj eraak Serigne Touba mu yor dëggalu Seydina Aboubacar Saddiq ja ci rasulullah mësta gaaral dara moom yenant bi Aboubacar Aboubacar weddi ko sëñ man dumbe sëñ Touba mosu koo tàllal dara mu ni ko déedéet kon dëggalu Aboubacar la yor yor njariñu Seydina Ousmane ci Serigne Touba lu mu fag yót Serigne Touba ak waa mësta teggi laxasaayam mësu koo tekki mësta noppalu génn xel la daw daw ko ci lu romb juróom fukki at lépp ma tarbiyewu ko ci Sëriñ Tuuba bi mu feeñee ba 1933 bi muy wàcc liggéey ci dëkk bi ñu toog di déndéy lépp la yóbbu Serigne Touba mës bëgg dara ngërëmu Serigne bi rek dégg sëñ Moussa Ka radiyallahu taala anhu ba muy woy magi sëriñ Tuubaa leen sëriñ bi defal mu ni ko yaa duyal maam Cerno Ibra Faati ci say may yaa ko jiital muy xutbu fii diiwaan yi ni ko yaa defal Seex Anta barke budul deñ may ko Daaru Salaam ak gaawaan yi yaa defal Seex Ibra Faal làmp budul fay wan ko yoon wa jëm ca dex gamu naane yaa defal Cheikh ma Cheikh Ahmadou ibnu Saïdin mooy sëñ Mandoumbe sëñ Ahmadou ibnu Saïdin yaa ko defal ngëm bu ba am ridwaani ba am ngërëmu yàlla door ni ko nag yaa saxal Cheikh Abdou Daaru Alimin sëñ Dame Abdourahmane Lo jox ko mbóotum kuy jàng fil Quraan yi door nag yaa ma ubbi may ma fàtt ko ba may woy yaa ma tere yenu mbëlk tey sàmmaan kon sëñ Mandoumbe ku ko tudd ci mag ñi rek dëggalam ngay njëkk a jàpp muy saadix gi mu doon ci sëñ Touba lu nekk moo ko njëkk a yëg sëñ Touba sëñ Mandoumbe njëkk a jël junni jox ko Cheikh Mat Bamba loolu mbokk yi histoire la hmm. université yépp a ko war a jàngale ñépp a war di ko waxtaane yoon mu toll ni yoonu murid fi mu toll ay millions de personnes yaakaar bisu màggalam gii lu nañu ko ciy def ku ne di teg ci loxol sëñ Tuubaa ak ni yoon ñu ni sëñ Mandoumbe ko njëkk jox bi mi ci ñëpp ba yoonu murit jeex sëñ Musaa noon na moo njëkk a fob junniy dërëm teg ca loxol Bàmba magam boole ca wurusu ñu naan ngalam mësta gestu àdduna sëñ Mandoumbe xàbbaana defal lool liggéey jumaa jii sëñ Mandoumbe ci njëkk a dawal téeméeri junni ba fii jamono toll di deux mille vingt et am nañu mënta am téeméeri junni te am barke lool ba nga koy man yombul kooka da ngay xañ sa bopp xañ sa njaboot lépp ngir jox Serigne Touba mu dajale téeméeri junni def ko ci liggéeyu Serigne Touba Pastef am àgg ci mu ni day jar ma dem sax ngir wuti ci lu ma fàggu jaral na ma dem ba Mali soppi samaw sant sant sant Bamba bee booba sant Fafana nëbbu Mbàkke ci ngir liggéeyal Serigne Touba. ndax su ma xoolee ci sant wi man na maa yokket loo te sëñ Tuubaa ku ko engagé doo dellu ginnaaw kon li mbàkke ji neex neex ma sant Fofana ngir jekku liggéey sëñ Tuubaa moo ma gënal sant mbàkke te lu ma yóbbu dara dañ ma bind ci taalibe yi santale ma Fofana nga xam ne sëñ bi da caa bépp ci pasteefu sëñ ma dund ba ne ko bindal Fofana mu bind Fofana sëñ bi ne ko faju njëkk ji mooy faatiha day taxawe fagi ci top moy falahi nagi moy yi sunu borom bik na ci ling ma wax neena na loo ñaanate ci ñetti saar yi mu fekk la ci mën dumbe xabaar pasteur bu señ mën dumbe keroog bi nga xamé ñu ngi défar jumaay Touba xam ngeen ne jamono bobo contexte bi ndox neexul woon am ndax la xam nañ ko fi ngay gas ba jot ndox dafa profond dafa sori 25 mètres de profondeur jambaara ko mën a gas ñu jaaxle ci ndox sëñ ma ndumbe wuti ay citerne ba tey fii jamono toll citerne néexut am benn bi rek mu équipé Touba gépp ay citerne ñu ciy wut ndox di taatam ci ndoxi taw yi lépp sëñ ma ndumbe la ba ciment yi jafe sëriñ bi defar loo ko këram gi lakk ni ko ma ndumbe sunu borom nee na nga defar ko te defar gi daa am lu ci suñu borom gàll danga koy defar defarin woo xam ni ngelaw dootu ci man dara ndox du ci man dara mu xam ni kon sàkket du baax seng du baax mu ni kon damay wuti ci bi muy jafe la koy commandé ci extérieur ci wërsëgam ak ci mbayam tabaxal sëriñ Touba këram jox ko bi sëriñ bi nee gànnaar 1904 sëriñ ma ndumbe di laxase fii di ko fekki gànnaar am na ci bis sëriñ bi soxla junni war koo jox Seex Sidiya Baaba lépp jafe sëñ bi am ci jaaxle daal di yónnee bataaxal ni sëñ ma numbe na ma ci jàppale ak maam Cheikh Ibra Fall ak sëñ Ibrahima Sarr Njaañ ñoom ñett ñoo ko tatafa ni ah, sëñ ma numbe ni ñun ñetti xajuñu ci aajub junni kon ku nekk na yóbbu junni parce que fa nga ko sëñ Bamba aajowoo junni la ko nekk joxe junni ñu tanko fi fekk serigne bamba ganna kéro serigne bi da bég ba ndabam la té keul xéewlu ci may ko serigne mëndumbe ne ko dé ko barké lo xana xamoni fas wi serigne tuubaa war bi muy dem ci tukkeem bi dimbali ñepp serigne mëndumbe ne ko rafatal té dañ koy waxtaane ah. fas wi mo war bi mi dem té serigne ambar sa ambar sambu tégal ko ci teg wi fas wo wé la wax ginnaw bi serigne mëndumbe la ko rafatal ngir gërëm sëñ mëndumbe xàbbaan mës ta dellu ginnaaw fu sëriñ Tuubaa joxoñ fa la joxoñ lu sëñ bi bëgg bëgg na ko ni sëñ Tuubaa jàmbaar jii ci biir bi sëñ Ibra Xujja sëñ Moodu Xabaat ma nga xam ni mooy murid saadix sëñ Moodu Xabaat ma nga xam ni moom la ñëpp nawoon ci pastéefam moo doon bàyyam sëñ mën dumbe ci pastéef sëñ Moodu Xabaat mi nga xam ni sëriñ Fàllu nawoon na ko lool ci pastéefam keroog ba yàlla dogalee sëñ Mouhamadou Gaye Jamooy ci njabootam juróom benn jigéen la jiital ci kër Serigne Touba sëñ Mouhamadou Gaye jamooy day borom cër waaye bi mu jëlee doomam soxna Astou Gaye ñu jox ko sëriñ Mor soxna taawu maam Mor jaara borom sax ca la am jàmbaar yu baax yooyee ko mel ni sëñ Moustapha Beto ca la ko am ko mel ni sëñ Modou Astou xam naa njabootam ca Washington man la ñuy conférence loo ca Amérique ku mel ni soxna Bintu Mbàkke ba ko sëñ Moodu Xabbaan yëgee dani fu ñëpp di jeexaat di fa dem ngir mbaax gi sëñ Mouhamadou Gaye Jamooy faaw mu tàbbi sama njaboot ngir fu sëñ Tuubaa xemmeem njabootu sëñ Tuubaa xemmeem fa njabootu Maam Mor Jaara xemmeem fa danaa fa xemmeem denc ci soxna Bintu am ci sëñ Seex Bintu am ci sëñ Ibra Xujje mii ci biir am ci sëñ Taala Mbàkke ca la am du dëkk kon ki ci bir tanef la mu nuru bayam lol sëñ Modou Xabbaan mësta dellu ginnaaw xanaa xamoo ni bi sëñ ma ndumbe wàccee liggéey 33 ki ko njëkk wuutu di sëñ Ibra Xujja mu mag ma ñetti weer rek la tok ci 33 ji la dem sëñ Modou Xabbaan tafu liggéey bi yenu ko téye ko 33 ba 75 delul ginnaaw yokkatul lu sëriñ Fàllu joxoñ mu def ko keroog ba sëñ Fallou waxtaanee Sénégal gépp yi dégg ni du ma dara waay maa ngi ci borom barak bi rek bëgguma dara moom rek jeex naa tàkk ci moom wutuma dara du ma dara waay bu ma kenn dégg dara boroom barak bi rek nee naa ko nikk rek moom rek sëñ Modou Xabaan dafa tëdd ni ko man tam nee naa la nikk maa ngi jaayante waat ak képp ku aju ci man joxaat la sunu bopp. taalibee ko rek yooyu ñoom ci loolu la ma sa dox masta dellu ginnaaw te xilaaf ak sëñ Mandoumbe ba 1975 ba 1975 defaraat ko waaw kon jërëjëf jërëjëf jërëjëf waaw mel te yéen xilaafa gi laa wax bu sëñ ba numbe mësta yokkat mësta daw sas mësta dellu ginnaaw ci at yi mësta dajaleel boppam lu mu liggéey yëpp sëriñ Tuubaa yót njabootu sëñ Tuubaa di yót sëñ Modou Moustapha di yót sëñ Fallou wutut dara 1933 ba 75 sëñ Modou Xabba ñu noppi koo gis sëñ Abdourahmane yenu yen daw ak moom 75 ba 2012 ah jox sëñ Habib caatu sëñ Mandoumbe Xabbaan wax borom paas Fall maa ko xam maa daan gis ko rab jàpp dindi ko léegi maa ko xam denc na sama mag ju jigéen am naa ko xam ca tiwaaw jox ko xilaafa gi mu def ci rek atam moomu ba 2013 ma dem jox suñu jàmbaar jii nga xam ni surtout sëñ Mandumbe bii sëñ Ibra xujja mu baax mii nga xam ni moom sëñ Muntaxa fekkante nañ ci daara ci taalibe rek njabotu njabootu man numbe Pastef rek mësta wut dara bi sëriñ bi laxasee jóge fi ñu ne ñepp tok ma dem dimbali ci islam islam lañu poñe khadim rasul ni yeen tuba bi yéen ma genné di ma ni dama denc ay ngannaay wax ngeen deug sama ngannaay moy ragal yalla ak joxe xam-xam bala ma bayyi ñepp dinañ moo gëm yalla muhammad listam dina tak te dootul fay mukk te maa ko yëkkati man Cheikh Ahmad Bamba départ ici يا جملة قد صلصوا بدلالهم من لم يكن له ولد أو والد أحرجتموني ناطقين بأنني عبد الإله وإنني لمجاهد وظننتم أن المضافع عندنا والكل منكم ذو قل ويحاسب قالكم إني أجاهد صادق إني لوجه الله جل أجاهد إني أجاهد بالعلوم وبتقى عبدا خديما والمهيمن الشاهد départ yi fii moom rek sëñ mën dumbe ni ko yaa ngi dem waaye maa ngi laxasu ngir yoral la sa njaboot ci ginnaaw bi lu ma bay maa ko yóbbu ndigal li nga ma joxoon ah sànc kër mëgay ndaw 1896 sëñ Bamba daa dem ba ah, mu def at mu ci dëkk di fàggu yëpp maam Mor Jaara borom saam di bay di jox maam Cerno di bay di jox sëñ Mbàkke Buso di bay di indi ci kër amut noppalu 1896 kër Mbëggey ndaw ndax day bàyyi mu ni mukk nekk ci liggéey ba sëñ Bamba fekkaat ko fi gën koo gërëm 1904 mu tasaare liggéeyu Serigne Touba dem sañ ci xàbbaan ñu miin mbuur te xam taset xam na nanu xàbbaan mu sañ ko 1904 di fàggu lu lew di yót sa njabootu sëñ Touba di yót sëñ Touba muy koy fekki ba gànnaar ci loolu la nekk huit noonu quatorze mu dem sanc xojjal fii ci wetu njaareem soyu ko dara di liggéey di fàggu di yëpp sëriñ tooba ca njaariñ ak njabootam quinze mu sanc mbampana bàyyi rek fàgg lu lew rek kasbul xalaal lu mu yor joxi sëriñ Tuubaa vingt-trois mu sanc saam lu mu liggéey yóbbul Serigne Touba 25 mu sanc fii Dendey juróom-ñetti at la fi def wuy ji boroomam lay wan Pastef fu sëñ bi mu yëgee ni da dem jot na dañuy rus naa yaras naa man sëñ ma Mandoumbe wàcc liggéey saam comme saam njaboot gee fi nekk doom yi ak soxna yi rus naa fee jóge fekki Serigne Touba àjjana mu naan ma foo bàyyi koo ma naan ko ci sama njaboot ci saam lim ma xamaloon jox ma ci ndigal ma ne ci muy tool yi liggéeyam joxe ca lay wàcc ji liggéey Dendey laa fi ay tol la ko defoon ngir fàgg suñ muutu xabbaano ko defal mu mel di dekk ni waye tol la woon liggéey fag rek la fi xamoon dem koy sànc lu fi fag dem yëpp ko serigne Tuubaa khadim Rasul sawu dara motax ma bekk ci bi jef jere jef jef ka sa jere jef motax ma bekk bi njabotam ndajee Mm-hmm. di delloo njukkal Serigne Saliou Mbacke ndax sëñ Saliou sëñ Mandumbe rek la na woon moo wax ni sëñ Saliou sàllaaw sama baay Cheikh Ibra ak sama baay sëñ Mandumbe ñaar ñu ma yéem lañu ñu dama leen di roy kii ci taalibe bu rafet kii ci pastéef bu rëy daal li ñoom ñaar de kenn mësu ciy tudd ku tedd ki lu dul da yor njàpp féete penku ndax xam nañu turu Serigne Touba ismalaay laxam moo tax sëñ Abdou samat mu Serigne yi no waxtan génn guddi man ak mom guddi gu yag ñuy waxtan mu ni ma yaw nawna sa xalaat wa yoonu murid bu fekkon tay nii ñu ko gisse jangat ko cheikh ahmad bamba khadim rasul sura yaaka bu taxawee taxawaayu yenant bi don ko yenant bi amna na saaba yu ko gëna a muy omar usman ali bu ñu ko don tan ci murid yi ci yoonu murid yaw ñan ñeent ngay xalaat ñu wara a lu señ sëñ ne ba xamna lu xew de mom cerno dina ci dem ak mu ne ma yow nag ku rëyum xel nga wax nga dëgg de ni ma xam wala tax sëñ Mandumbe di ci dem ndax daa boole sariya ak xaqiqa sëñ Mandumbe sariya jamu ko te boo demee ci xaqiqa da nga ab daanukat na sëñ Bàmba rek la te boo demee ci sariya lépp la matal te pasteefam yéem na sëñ Tuubaa mësta dellu ginnaaw zéro faute na sëñ Mandumbe kon da ciy bokk Cerno ku ne xam li mu wàcc li mu li mu taxaw ci yoonu murid xam ngeen ni sëñ Mbàkke bu sóot kenn du dem mu des mu ne ma mën a xew moom ñii dinañ ci bokk sëñ Mbàkke Buso ak Thierno ak sëñ Manoumbe lu mën a xew ñoom dinañ dem ci ñeent te wax na dëgg kon boroom dëkk bii mooy borom Pastef bi mooy borom xam-xam bi ndax sëriñ Touba ko tarbiye jàngal ko te sëñ Touba raw ci àdduna ku mel ni sëñ Touba si fii nii dootul am. radaliyallahu allazi xat faata minal xuyóori wa misaali faata sëñ Tuubaa ko waxal ko yàlla delloo na ma lépp lu nekkoon tuyaaba ak yiw mu ngi sama loxo ku mel ni man nag jartaraas du ngeen ko gis la wax wa misaali faata sëñ Fàllu ni yaa raa iman misla cheikhi mahlëk falasta taraafi sëñ Fàllu nee na yow mi seeti ku mel ni sama sëriñ doucement doo ci teg kon ku mel ni sëriñ bi amul loolu mooy dëgg ki nga xam ni nag ku mel ni moom amul ci ragal yàlla ci sàmm ci njug ci xam-xam ci maandu ci njàmbaar ci fit ci gis ëllëg ci bëgg yanant bi ku mu taxool wàll jikkoom te mooy defal lépp sëñ Mandumbe ndax sëñ Mandumbe kat baayam daa teel a wàcc liggéey boo demee Poroxaan bàyyi ma nga fa ziyaar naa ko sëñ Seydou Mbacke ma nga fa tëdd fukk ak benn yi des Poroxaan ci la bokk keroog la sëriñ Touba jël sëñ Mandumbe téye ci loxoom ne ko maay sa lépp maay sa mag maay sa baay di sa sëriñ xanaa xamoo ni moog sëriñ bi sax yàlla daa boole seeni mbir juróom benn at la ko sëñ Bamba mage juróom benn at la ko sëñ Bamba jiitoo àjjana bokk dund Seigne Bamba ngi feeñ 1853 non non sëñ Mandumbe ngi fees mi mi 1859 Juro mbé dafa a Ki ci mbacké ki ci ndia ben la Seigne Touba gi génn aduna 1927 Seigne Mandumbe 1933 Juro mbé at Do bokku dul. kon Yalla bolé seen lepp. Seigne bé ko tarbiya sëriñ bé ko jangal, serin bee ko yar sëriñ bee ko geureum ul, bee ko wul ci lepp sëñ mën na defar tey di bisu fatiliku sëriñ saliw waxna ba tay ni sëñ saliw moy force tranquille bim fi nek mo raw ñepp ci xam-xam tay ay bari wu lolu mbokk yi kéemtaan la raw ñepp ci xam-xam te say bari kenn du fekke sëñ Saaliw fu waxam baree lool déedéet te moo ne li mu xam kenn xamu ko moo raw ñëpp sëriñ Saaliw dooni ndax alxuraan ji moom moo la gën a yéem ci moom ni mu ko dégg wala nga ni boog ndax boog dégginu arab gi la gën a yéem ko dégg wala nga ni déedéet man arut bii ma gën a yéem ni mu ko xame wala nga ni déet li ma gën a yéem ci moom mooy ni mu jekkoo joxraaf géographie xam dëkk yëpp ak la ca ajoog fu ñu nekk wala nga di det architecture ma gëna yëm ci mom tabax yi yépp xamna wala nga ni taarix la xam histoire rek wala nga ni hisab la xam calcul rek wala nga ni lugha la xam baatu arab bu ne limi fi wala nga ni mom mantikh la xam balaa xam ni ñi waxe ba wax jot sëñ Saliou ben kàddoom la masa lay wax wax ji ëmb la at biiru at ngay xalaat ci wax te do ko mëna jéxal ngir waxam ni mi amé solo loolu nag ragal yàlla koy maye wax naa la li ci xam-xam ku mel ni Serigne Saliou mësuñu koo gis Cheikh Béthio Thioune taalibeem la am na bis mu dem France di xool bërëb bi ñuy wax Tour Eiffel Tour Eiffel mooy ni maa bu mag bi ngeen di gis ci Paris capitale France mu xool ko yéemu ci lool ndax ay millions de personnes ñoo koy visité Cheikh Béthio ñëw di teri nettali sëñ Saliou sëñ Saliou mooñ ne ko ah, karna naa maa la gën xam Tour Eiffel de loolu xaw koo jaaxal mu ne kon demoon nga fa mu ne ko déedéet waaye amna na naa ci xam-xam bu wér ne ko seex bi su FL. neexoon ma wax la Gustave Eiffel mi nekkoon architecte bi ko doon defar wax la kañ lañ defar Tour Eiffel wax la ñaata bulo moo Tour Eiffel wax la lu ñu defar bu Tour Eiffel sëñ Saaliwu Sama la man mi di waxtaan yobul na ko toba bo xamni mako duggal ci lislaam tudde ko Muhammadu Rasulullah mu ngi tudd Daniel Garcia Carillo le tuddu doomu Barcelone la Espagne la fekk ba li ma ko yóbbul sëñ Saaliwu dimbali na ma ba tubaab yi nàmp espagnol man na len ko jangal ma ko mu ni dafa bëgg wax ak sëriñ bi weccoog mom ay kaddu maaraam ba ci sëñ Saaliw ko dafa doon ñaan ndigal pour wax ak yow moom kat daa tuub di julli tudd Muhammad sëñ Saaliw ni sallallahu alayhi wa ma ne ko day ñaan nag ndigal ngir kàdd yum la bëgg a jotal Mbàkke mu ni bismillah ma ni xool tubaab bi ne ko usté puede hablar ahora con el marabu léegi man ngaa wax ak sëriñ mu ni ma Abdoulaye yo estoy muy honrado yo estoy muy contento también hoy yo estoy muy contento para estar con este hombre multidimensional. Dile que yo estoy muy profundamente emocional. Yo le deseo una larga vida, una salud de héroe para continuar a obrar para su padre, si Ahmed Bam. mu wax ko ni tey amna amna contentement si gina ci toog gi ma toog ak ku màgge nii ko mang koy ñaanal na gëna wër yag fi ci la wax ci maraam ni ko mbàkke nee na ma ni sàllaaw li mu doon ñaan lu ñu xam la nee ko amin waaw calaa yéegi ni kon moom kenn du ko interprété langue la sëñ Saliou déggoon kon li sëriñ Tuubaa wax ci melow nitu yàlla yëpp bi mu leen di jooy sëñ Saliou yooyu yëpp daje na ci moom bu ci nekk mën naa koo leer sëñ Tuubaa dañu woon xoqal bukaau ala saadatin amwaatin tabkil araadi alayhim kas nena na an kay an kay angkai, na kay an pourquoi pas yell na yell na sang yi fi nekkon te genn aduna lu mu yalla di len joy mu ndax asaman yaag len di joy, souf yaag len di joy, ba yalla xass nya ña mu jooyul dani fama bakat alayhi musama wal ard dafa wax ni ñoñu su bokul ma leen asaman asamaan ak souf sax du len joy kon nga xamni amna ñu muy joy sëñ Tuubaa rek ni maa ngi leen di jooy ndax asamaan yeeg suuf yaa ngi leen di jooy mu ni ab kii alayhim wa arju fil bukaai gadan ridwaana man fii xaabu bil xalaawaat mu ni maa ngi leen di jooy man Cheikh Mat Bamba gaa yu baax yooyu te jooy yi ma leen di jooy maa ngi ci yaakaar ngërëmu boroom bi nga xam ni moo leen fàddaloo ñu fàddu génn àdduna wuy yi ko ngir jëm ci yu gën a neex yi nekke woon muy aljana payu sunu borom mu ni yàlla fa nafsi ala faqdil akaabiri man raaboo li rabbin daahum lil uluwaati mu ni woo naa njàqare sama bakkan woo naa tuskare woo naa njàqare mettit man Cheikh Ahmad Bamba ci lu ko waral mu ni ci ñàkk gu ñu ñàkk mag ñu baax ñii nga xam ni fàddu nañu wuy ji yàlla seen boroom mu jëme leen ci ay may yu kawe kawe kawe ajjana yu kawe kawe kawe mu ni nag ñooñu tabki layaali tabki layaali alayhim wa suhóoru ma an misral asi yi bi wajdin wal xuduwaati mu ni ñooñu kat guddi yàgg leen di jooy xam ngeen ni sëñ Saaliw guddeen koy jooy moom ndax ñi miin jataayam ba fajar da lay biir ni ciy jaaru ci nelaw moom daawut nelaw da don serigne touba ci nawmi ibadatu rabbin la sharika lu khalbi yudabbiru ayan turisul hikama kon ñoñu guddi yang len di joy ngir ibadat yi ndan def munitam waye ñoñu wër yépp ak len di joy ndax serigne sayu ay wëram mu ngi ko daan seddo ci daaraam yi tay mu nga ngeejaan mu nga ngot tay tay mu nga jappandal mu nga njurul mu nga daru salam mu nga daru rahman fu ne mu dugg fa mu gandoo kaa di xool jaam ñi ko yàlla booleel ñuy ay tuut tànk mu bëgg leen a fàggul ngërëmu borom bu dégg bëccëg mu ngi leen di xool di leen say boole kook ak jukki alxuraanam di ko jàng bis bu jot Serigne Saliou mu ngi daan sóor ñetti tonu ceeb fii jamono toll kenn mënut loolu ñetti tonu ceeb par bis ñetti tonu ci par bis soko xayma ci fukki fan ñaata lay doon wéri tonu ci soko xayma ci wér juroom ñeen fukki tonu ci wér wu jot soko xayma ci ñimu yor 25 ans yo xam tàggoowut ak ñom ñaata la ta état du ci dugal loxo ta du exploiter kenn nil dama ma dégg nga dan do ngam dem de yalla sonde sonni mo lay togal ci wërseuk di def ci yow mbirum yalla di la jangal xam xam so febaré mu fajj la di la wutal fo teut di la to yeureum la lol def la ni moromam ndax yërmandeem ag na ci tout tank yi la def ay morom ñom lay waxtanal ñom lay jekkel ñom lay dimbali ñom lay bayyi xel démb magi ngi ak mbokk mu bax muy seigne aliou Diouf di setu Serigne Thierno Diouf Lambaye wala di seetu sëñ Mouhamadou Diouf mu sëñ Alioune Diouf Lambaye ñu dippe ko maamam dégg naa ko démb mu ni ma ci waxtaan wuñ doon seet moom mu yaroo ci kippaaru sëñ Saliou mu ni ma góom sax bu gisee tuur tànk bu ko amee day tuur ay rongoñ moom sëñ Saliou góom yi yërëm tuur tànk bay tuur ay rongoñ ku toll ni sëñ Saliou di wax ni ku dul yàlla mi sàkk jaam ñi ëppoo ma ci jaam ñi yërmande xooleen jooju yërmande kon kooku weer yépp a koy jooy guddi yépp di ko jooy bëccëg yi ak gont yi di ko jooy ndax alxuraan ak jàng xasiida durus nooru daare yi jàng jaalibatul maraatib jàng mafaatihul bisri jàng alxuraanul karim joxe ay ñam yar ay tuur tànk di leen wéttalikoo di waaraate di wird di julli waxtu wi kooku bëccëg yaa ngi koy jooy guddi yi di ko jooy munikanu ni kaanu ibadan bitaatin li rabbihimu wa kana jallaluhum rabban bi minnaati lu ñuy joy góoru yalla yi ndax ñom dañoo nekkon ay jaam yu daan top yalla seen borom top ak yem ci serigne Saliou bari na ku yegul ni bañam bi liko dindi taxaw guddila ak yeen ko gis dafay am bis muy taxaw boobu jëmee na mag di taxaw taxawaay bi yàgg ba mujj toog ci la bëñ bii dañ dafa taxaw ba àgg suuf keroog bi ñu ñëwee may ko loxo mu jub dane alhamdulilah bi ma amee ko koo xam taxawal yàlla guddi moo ma ko def ndax gaa yi dëgg tata jaafa junuubuhum anil madaaji yad'uuna rabbahum xawfan wa tamaan mimmaa razaqnaahum yunfiquun gaa yaa ngoog su guddi jotee dañuy naafile ba fajar wërsëg ku nu am séddale ko te yàlla tax fa la sëñ Saaliw nekkoon kon jëmm lañu yoo xam dañuy topp yàlla seen boroom ci guddi ak ci bëccëg waaye yàlla tam ko am fula la yàlla ku ko nekkal mu nekkal la yàlla tam nekkal leen ci di leen xéewale moo tax li daan dikkal Serigne Saliou mësta am ku muy dikkal li ko daan dikkal mësta am ku muy dikkal te yéen ñépp xam ngeen ni génnul dem fenn sonalul kenn ci daaraam la nekk ni jox leen ma ndaw ñi ma def ca ñoom la Serigne Bamba doon def ca mag ña Suka ko ndaw ñi yayowul sama barkeloo ko ci ñoom ngir liggéeyale ko sëñ Touba toog fi mu toog lépp di dox lu ko may fàggalu lew kasbul bul xalaal gor fu toll ni xel koom lépp ci bay rek fàggalu lew ragal yàlla topp borom te xam ne yor wërsëg bi te gi gën a mën a wërsëgal jaam bu muy wërsëgal mu koy delloowaat ci bi jaam mu ne ci loolu daan dikkal mës dikkal kenn xam ngeen ni moom ko am tawfiix la sëñ saliw ndax dañ koo mës a jox dërëmu ngurtu booba nee na tuut tànk la dalagul sax nee na alquran mu daw ba fekk sëñ Touba toog mu teg ko ci dénk loxo sëñ Touba nee na sëriñ biñ leey Saliou lii nag loo ci jublu mu ne ko dama laa bëgg a jox hëddiya sëñ Touba ni ko dina la yomb lool yomb na ko nag li ko daan dikkal mës tànku mi dikkal te mboolem njabootu sëñ Touba doom yëpp laa wax ñi ko mag ak ñi mu mag moo ci njëkk a joxe gàttam ci màggalu Touba sëñ Saliou bis bi sëñ Touba joxe ndigal li sëriñ Balla Faali Jeng ni bis bi nañ ko ci santale yàlla ci bernde daa fekk ku ñuy wax soxna Njaaye Jaxate ci kër sëñ Amsa joxoon sëriñ Saaliw am mbultu mbote mu ndaw ni ko maa ko barkeloo ci sa liggéeyu baay bi jox la ko àddiya sëñ Saaliw doon ko gardelu di ko yarlu bi mu déggee ndigalu sëñ Touba li lan nañ ma ci defal sama gàtt boobu ma dàbbal ko sama bisu baay kon moo ci njëkk a joxe alal ci mboolem ku ko mag ak ko mu mag waaye ñu nekkoon ñoo xam ni kaanoo yaxudduuna tarkal wirdi maa sibaain min alxalaali min asbaabil musibaat gaa yi yàlla ya dëkk dañoo nekkoon ñoo xam ni ñàkkatee wirdi sëñ Saaliwu ba bi muy génn àdduna 2007 le 28 décembre dëppoog bisu aljuma kurus ki lañ jële ci loxo loolu moom ñi ko jege ñàpp nañ la koo wax ba bis bi muy wàcc liggéey mu ngi yor kurusam gi di wét kon toog te wirdul wóor góoru yàlla yi xamuñu koo ci gis mu ngi kurusam lekk ba suur ci lu dagan waxul lu xaraam nag lu dagan loo xam ni yow yaa ko moom mu lew la dong waaye nga lekk ci ba suur dañ ko jàppe woon musiba ñoom gaay yàlla yi waxuñu nag lii xew nga xam ni midi da ngay lekk 14 heures ngay lekk tubaab yi sax grignotage dañ ko tudd dangay ngay grignoter rek midi da ngay lekk 14h ngay lekk 16h ngay lekk guddi gépp lekk te nit bu fekkee yaramam daa fees dell ak lekk day tàyyeel ci jaamu yàlla nelaw rek la xelam di nekk waaye moom nekkoon na koo xam daa taxoo kii fu mu toll sëñ Saali da ngay far sax yërëm ko kon nekkoon nañu ñoo xam ni ñàkk a ak lekk ba suur ci lu leen lew lu dagan dañ koo boole woon ci sabab musiba كانوا إذا الليل أرخى ستر ذا حلك قاموا سراعا لأحياء الدجنات إحياء الدجنات dañu nekkoon ñoo xam su fekkee guddi mas naa tàmbalee feeñ commencé wane ak tukkam commencé ñuul ñoom dañ naan bërëb fas seeni bég lool ndax ñu ngi jëm ci wéttali koo yàlla seen borom ci digli ba fajar ak di jàng alxuraan باعوا فضولا بذكر الله خالقهم فالنوم jàngkat yi dañ ko yàq lu bari nag du fa mu fanaw mu baax fanaw ma loolu liggéeyu grammaire ah fa baaxu annaw ma kay ma foolul bihi la baaxu fudulan bi siri lay فالنوم في ليل باغ بالمناجات كانوا إسا الليل إلسا هلك خاموا سراحا لإحياء دجنات باغ فدولا بذكر الله خالقهم فالنوم في ليل باغ بالمناجات kon fa naw ma la ñuy wax waaw ñooñu neen gaa yu baax muy joj ñu ni ko waaw mu ni ñoom daal bu guddi massa jot bu guddi massa jot dañuy dañuy dem dundali ko waaye nak dañoo jaayoon ay caaxaan ah dañu jaayoon ay caaxaan an mooy caaxaan wax ju amut njariñ wax ju amut solo werante jullit bu bëgg a dox ci ngërëmu yàlla du ko def toog grand place jëw déglu ay mbóosóor chaahan ray satan ci lu amut njariñ wax wax yu amut njariñ ñom duñ ko def diwa man diw diwa man diw diw mënu ko déedéet ñoom daal fudulan bi zikrillahi fannaw ma fil layli ah <laughs> luñ ko wéccol ba'u bil munajat nee na ñoom bu guddi masaa jot ñu nekk ci yàlla guddeeg bëccëg ci yem nag lépp luy caaxaan dañ koo jaay ku jaay nag dina am loo jënde mu ñoom bi ñu jaayee caaxaan dañ koo jënde tudd yàlla lañuy toog di wax wax ju amul njariñ ñuy jàng alxuraan ak di waaraate ak di jàng xasaayid yi ak di zikkar ak di dénkaane lu baax al amru bil maaruf wa nahyu anil munkar fa la ñu nekkoon ñoom du ñu yàq seen benn temps mu ni nag bañ ko defee nelawi guddi ñu daal di koy jaay jënde ko déeyaale yàlla seen borom bu guddi jotee yow ngay nelaw ñoom ñu ngi déeyanteeg yàlla seen borom loolu seen plaisir ci la ñuy amee seen mbégte seen àjjana kon ñooña baaxu fudulan bi zikrillaahi xaaliqihim fa ma fi layli baaxu bil munaajaat tajful madaajian fii laylin junuubahumu naasiina salma wa layla bil bushaaraati <laughs> nee na ñoom su guddi jotee dañuy wër seen wét xam nga lal baa ngi nii ñoo mom lal mais rus ñoo dëdd ci lal ba jaaxa ku yi ku dul jaaxa na xam ngeen du defeenu mo rus no jaaxa rus no defeenu wét gi lañ ci xaw a touché tuuti rek ndax ñu ngi préparer juga dañuy bëgg rek wan ni dagal na leen li ñu def ci ni rek tout ñëwaat wat moo mo dañuy wër seen wét yi ci lal bi nu ñuy def jugaat bërëb nekkat ci seen jaamu yàlla fàtte nag ku ñuy wax salma salma mooy jigéen ji gën a rafet ci arab wala layla wala soxda dégg ngeen hëmmat sulayma bi sarfi an maziyati, kay ma taquda zimami li raziyaati sëñ tuubaa boobu salma lay waxal waaye da koo tasqiiral def ko sulayma kon salma jigéenu arab bu rafet lañ koy wax ñoom xooluñu woon borom musóor yooyu guddi jotee ñu seen jaamu yàlla mu daal di wax ni fa haythuma barazat layla bi bahjatiha anha tawallaw ila al mawla bi taat suñ ma see seen dara ba soxna yi wër si leen sax dañuy dumboo yi ci ñoom dem bu dëgmal yàlla seen borom ni moo gën a neex yàlla rek ñoom fa la ñu nekkoon mu ni yan saw na layla wa suuda fii xiyaamihimu dañoo waroon ginnaaw fàtte salma ak layla ci seen taxawaayu guddi waaye ku fàtte dara di am loo fàttali ko nag mu ni mustaanisiina ñu wéttalikoo nak bi askaari wa ayati ci lan zikrul zikrullah ak ci aaya alquran rek ko jàng ak la ilaha illallah fa ñu nekkoon hadithuhum sëñ saaliroo ngok hadithu zikru mu'min nafi'an samadin la zikru hindin wa lubna fil maqalaati seen waxtan nak ñom gaayu yàlla yi yàlla kesse sëñ saali su seen assalamu alaykum aleykum ngi tuubal sama mbokk julit yep ak sama mbokk jam yep leen baalu àq di sàkku njéggal ci yàlla sama borom leen wax ni doomu aadama joo gis ñaari biir rek la am biiru boppam bii bu mu nekk bu mu nekk yitteem yàllaa ko sàkk dina ko jox lu mu ca def ak biiru bàmmeelam bu mu boo mun na nekk yitteem lu mu ca deful du ko fa fekk waxam yépp yàlla la du ko génn lu dul islaam awma ci defar awma ci yàq yàlla kese ci la doon dox kon mooy ñi nga xam ne seen waxtaan ci yàlla la daan yem ci la daan tàmbale duñ ko duñ ko booleek dara yi àdduna duñu waxtaane Liban duñu waxtaane Inde seen yoon nekku ci bitim réew ak ay richesse yooyu ñorulee wutuñu àdduna bëgguñu ci dara mas naa boo xam ni bi pënk yi xew pënk xam ngeen oto pënk bu bees tàq ñu indil ko mu am matt yu mu bëgg yóbbu rek ci liggéey bi ñu xool xool ndeke camion yi ko yóbbu génn mu gis oto pënk mu defee ko fii ah Mbàkke lii daa mel ni day yàq foto yi lii de oto bi moo gën a cher mu ne ah oto lu yéen leen ko ci te yóbbul ma am na bis oto bu rafet buñ ko jox addiya kenn ci ndonga tarbiye yi fekk ngóor soo xam ne rek tuut tànk la muy focc oto bi rek mu mbéj dangaa dox da nga yàq oto bi keroog bi sëñ Saliou génnee xaal ji mu dikkee keroog ku fa taxaw tiit mu ni ko li ngay def lu mu doon mu ni ko gisoo ni oto bi mu ni ko yow kon xamatoo teraanga ndax teraanga ji tax nga koy door lu mu reey reey yalla nga ko terale doomu adama nga bëgg tedd dil doomu aadama ngir teraanga xoolal boobu jangale lu teraanga ji reey reey doomu adama ko mom mom la ko yalla teral legi na nga bëgg tedd dil doomu adama diko joylo diko di diko door di ko dóor ngir teraangay àdduna te moom moo ko ni ko tuub mu ni ko tuub naa ko mu ni ko mat na ko lool wax bëggul won ko laal xale koku moy seigne sall moo tax yàlla defal na ko taw tawféex ci xale yi xale yëpp bëgg sëñ Saliou foo taxaw sëñ Saliou la dul ndakaaru gee koo tudd léeg-léeg nga gis sax koo xam ni la mu nekk sax am naa yàlla gërëm ko mu ngay musique aka làmba ak waaye barke Serigne Saliou ñépp ko ba kon ni mu amee woon yërmande ci xale yi tax na yàlla tàggat xale yépp ñu bëgg sëñ Saliou riir wuti ko loolu moo indi seen liggéey bi mu nekkoon jëmm joo xam ni kon dafa bokkoon ci ñi nga xam ni fal ilmu siimatahum wal ilmu daydanahum dona daawi wa inkaril maqamaati gaayu yàlla yi dëgg soo leen bëggee xam nañuy mel xam-xam mooy seen mandarga dañuy fees dell xam-xam wax naa ne léegi ni sëñ saaliwu xeetu xam-xam boon di lan ci xam kenn xamu dañu abdou samat mbàkke mu sëriñ soxay bu moom ena dem na amérique wutal ko fa café gu santos café indil ko sëñ Saaliwu hëddiya Amérique laa ko jëndee ma demee jox ko sëñ Saaliwu nee na sëñ Ablaay keroog laa yéemu ci sëñ Saaliwu bi ma ñëwee ba jox ko kafe Santos bi ni ko Mbàkke maa ko fàggoo Amérique xam naa café gii nag Santos la tudd nee na mu ni tekk ba mu yàgg na ndax xam nga lu ko tudde Santos sëñ Abdou Samad nee ma ni ko bëgg naa koo xam de mu ni ma Santos day réew moo xam ni Brésil la fekk baax te ñi xam Brésil xam nañu am na ville bu mag bu tudd Santos am na équipe bu football bu am pëlee fa la doon football Santos mu ni nag Santos fa la ñuy bayee café gii ni ko nag café gii dafa fekk baax ca réew moom ñu tudde ko nag café Amérique gii dafay ñëw di fi doxanteem rek waaye dëkkul ni ko Abdou samat mu ni ko Mbàkke mu ni ko ndax xam nga ni jawwu Brésil jawwu ji jawwu Brésil jawwu ji di ñu tiim ak jawwu Côte d'Ivoire ñoom la yàlla yemale mu ni ko ah mu ni ko waaw ñoo niroo jenn jaw moo tax taw yomb leen te eh, di ma wax xeeti jaw yi tax taw yomb ci suñu Abdou Samad nee na wax na ma ci Brésil lu mës xam ak ak man ci Amérique ni ma xanaa xamoo réew ma nga jógee nag di Amérique téeméeri nit ñoo fa jël fukk ak juróom ñoo fa fekk baax ca réew ma ñi ci des ñëpp juróom ñett fukk ñaak juróom ay doxandéem lañu te yéen ñi jàng histoire Amérique xam ngeen ni li ñuy wax melting pot nga xam ni mooy le métissage culturel des américains ñii dañoo dëkk Mexique ñii dëkk Chine ñii jóge ci Afrique ñii jóge côté Mexique ñii jóge côté Brésil ñële Argentine ñee France ñëpp dajaloo fa mu nekk métissage culturel waaye ñi fekk baax ci réew mi fukk ak juróom na ci téeméer yoo xay mais eh, keroog sëñ Saliou ma jàngal lool kon xam-xam bi woon ci moom amul ku ko am am na magu taali bi bu ñu doon wax Murid Samb rahimahullah dafa am bis muy dem France ñëw tàggu sëñ Saliou ni ko ginnaaw ëllëg laa bëggoon a dem ca réew ma France ma bëggoon nga dolli ñaan dañ saali ni ko yàlla nga fa am tawféexu sëriñ mu ne ko li tax ma koy sàkku nag man réew ma ma ca nekke dafa xaw a rëb lool dañ saaliw ni ko man réew nga ci nekke mu ni ko niis dañ saaliw ni ko yaakaar naa maa la gën a xam niis de loolu jaaxal ko mu ne ko am tukki woon nga France mu ne ko déedéet mosuma faa dem waaye xam naa niis ni ko doxantuwaayu xong nopp bi ñuy wax promenade des Anglais nu mu def ak sa kër murit ni ko wallaahi matul 200 mètres xalaay doxantoo Mbàkke bis bu jot sëñ Saaliw ni ko boo ko weesoo yaa nga jëm ca kanam seen dun wa ñuy wax Île de Corse ni ko Île de Corse googu ca kanamam boo ko rombee yaa ngi jëm ci seen xeeju ndam bi ñuy wax Arc de Triomphe ñu ngi ko defar 1807 di ko wax aztèques yi ko defaroon ni ko sàllaaw boo jëlee ca bëj siin nga yaa ngi génn ji Marseille soo jëlee ca bëj gànnaar nga yaa ngi génn ji Toulon mu ni ko laay ndàkke ndeke nii nga xamee France mu ni ko xam-xamu joxraaf bi ma xamee France mënuma cee wax ak kenn ku ma dégg moo tax ma saxoo noppee waaye ki ngeen di fàttaliku sëñ Saaliwu mooy fàttaliku koo xam ne ku oyof la woon jeex tàkk ci borom te oyof tooy mën a jaxasoog ñëpp dafa am bis taalibe mu tudd Moussa Gueye am jabar soxna suñ ko may soxna si nekk tubaab bu ñuul bari tiitar lool di làkk rek te musaa Gueye nekk ndongo tarbiya sëñ Saliou gëm ko lool mu ànd ak moom bis nag di sàkku ji ñaan sëñ Saliou yóbbuwaale soxna si ba ñu ñëwee sëñ saaliwu di jàmmanteeg ñoom ba ñaanal leen naka la ñu génn soxna si ni Moussa Gueye waaye yéen seen sëriñ bii moom doyul waa yére mi ni mel nag du ko soppi sol yére yu gën a set gën a civilisé bi rek Moussa Gueye mer xaalu ni ko may naa la sa baat soxna si ni ko nga ne mu ne ko yow comme yaa ngi xool borom jamono ni mu soloo di ko lijjanti ak di ko jubbanti yow may naa la sa bax mënuñoo ne mu daal di génn jël bagage am dem mu toog ba jëmmi jamono rek sëñ Saliou yónnee woolu ko mu ñëw ah, incha allah am na koo fi àndaloon wax na su baax soos ma mu nuyale woon maa ngi gis ngeen ànd ci kër gi ma bëggoon nga wax ma lépp lu ci am ndax gis naa koo gis ak yow Moussa Gueye ni ko li ci nekk kay Mbàkke mooy wàcc naa ko ndax dafa ñëwoon fii di xool ni nga soloon naan sa yére yi daa fagg loolu lu ci yoona motax may ko bax seigne Saliou mu ëpp na def de bëng nga luma neex kay ma wax la noy def jël ñaari million jox demal nga neexal ko mu dellu ci kër bi so bëggee sama ngërëm waat ko mu ñëw ndax kima xol ba xol sama yéré ni setul daa bëgg mu set rek ta la kon ma nga la ci ma ngi koy may ndigal nee ko sa bu yéré yi faggatee dem fotal mako may na ko ci ndigal mako koy kon ko moo gën a oyof ci koy tudd jikko yanantu bi la lambo bi mi nek mbour mbuur booba lay door a dëkk mbuur ndax xam ngeen ni këru mbuur gi sëñ Modou Moustapha ko jox magam taagu sëñ Touba genn guddi gu mu dem ba guddee ci dëkk bi rek bëgg a fanaan foofu ci kër yi ñëw fekk fa jëwriñ bi xàmmee ko sax ñu ko damaa bëggoon mbokk taalibe yi rek fu ñu mën a fore bët ba ëllëg kooku sax xamul li sëñ Saliou lay waxal booba jamono te kër gi sëñ Modou Moustapha ko ci joxoon digale ni ku ñëw rek na nga koo daal ni ko bisimila waaye ba mu fa fanaanee nag sëñ eh, ndaw li nag dem wax ko sëñ moodu xam Moustapha xamul sax ni moom wax ko mel yooyu yëpp ni ko am na ku ma gis te nee na sëñ Saliou la tudd daa mel ni Touba sax la bàyyi ko daa mel ni ko faa fekk guddi rek mu bëggoon faa fanaan sëñ Modou sax sama rakka gemal gaaw ngi jël ko yóbbu ko ci sama néeg ba may fanaan man sama lal ba jox ko ko gaaw waaw ko fay daal ni ko maa ngi ñëw léegi bi mu ñëwee nag fekk fa sëñ Saliou mu ganale ko fa ba ca ëllëg sa sëñ yu war a dellu sëñ Modou Moustapha bég lool ni ko ndax kër gi doo far sax ñëw ma jaay la ko sëñ Saliou ni ko ah damaa yorul njëg de waaye bëgg naa sëñ Modou Moustapha ni ko pourtant yow rek am njëgu kër gi li àdduna bii rëy rek yow rek yaa mu ne ko lan mooy njëg li mu ne ko nga di ma ñoo bokk baay mooy njëgu sëñ Saliou ni ko ñoo ko xam nga lu tax ma ma sàkk lool sëñ Touba nu jur yar nu gërëm nu ñu saytu liggéeyam. ginnaawam naa ko njëkk a wuutu liggéeyam waaye mosuma dégg ku mu wax ci ñun ñëpp ni doomam yow rek laa dégg ñaari yoon yu wuute mu ni Saliou sama doom la benn bi daa am kilifa sëñ Saliou yi nar jaar ci kanamam kilifa ga téye mu jaar ci kanamu sëriñ gi téye ko ngir bañ mu jaar ci kanamu sëriñ Tuuba sëñ Tuuba ni ko diw mu ne ko waaw mu ne ko tuub ko xanaa xamoo ni saaliwu sama doom la mu ni ko mat ako maa ngi koy mu ni ko waaw mat na ko de sëñ saaliwu mii sama doom la beneen bi sëñ Tuubaa génn nañ ma wool saaliwu ñu dem indi ku ñu yaakaar indi keneen ku tudd saaliwu mu ni waxuma ñii sama saaliwu laa wax naka lañ indi sëñ saaliwu sëñ Tuubaa daal di muuñ bañ koy séen mu ni ahëkaza kii laay wax daal ni hëza min nii sammay toxu saalihan kii ci man la bàyyi ko maa ngi ko tudde saalihan sëñ Modou Moustapha nag ni kon kii jar mu bokk ak man Baye. dama ne dama bëgg ñu ñëw jox sëñ Ablaye Diop bisimilah ak kii sëñ Sall jàpp naa ne jàpp na lool. ndax li mu wax nag comme su doon wax sama mbare gaynde gi def nga loo mënul te lépp loo dul fay. acca nañ ko jox ak ñooy Serigne Saliou waaw yéen a jox ko ak ñooy Serigne ñëw leen jox ko addi Serigne Saliou waaw na ñëpp ñëw na ñëpp ñëw te ngeen di jaar na ñëpp ñëw jox ko addi Kunci sekarang ku ci sa borom dem noo ngi ñaan ci barkeb Serigne Saliou yàlla la nga kita fan say aajo faju nga fekk lépp njaboot ci barkeb Serigne Ahmadou Moustapha Bam فاجرت زينتين بالخير وما أمن لم يسعدوا yal na yàlla guddal ak ci barke sëriñ Ahmadou Ndour ak Abba waaw ñoo la jox rek addi sëriñ Sall yal na gone doon mag man ñi fekk njaay ñu gone yi laaj ko mu ñëw ma jàppal ko bismillah ma wax ni kon noonu la jotee kërub nguur moom lu Moustapha ni ko yow rek am am jëgli bi mu ko waxee lool ni ko nee ñoo bokk bàyyi mu ni ko ñoo bokk bàyyi mu ni ko kër gaa ngoog leew na kër googu nag bi ko sëñ Saalum yi door a jot xam ngeen boobu lay door a ñëw mbuur nga xam ni miinagul woon bu baax koñ bi mais daf ci am bis lii tam moo ko doon nettali bis moom moo ko nettali bopp dafa am ku ñëw nuyu ko sëñ saaliwu ni ko sëriñ diw kooka ni ko ah mbàkke de baatu sëriñ dama koy wax ku toll ni yow loolu ëpp na ma sëñ saaliwu ni ko sàllaaw sax man maa baaxoo duma sàllalu kenn ku ma mën di woo tamit sëriñ laa leen ni ko ndax dama cee mës am am nattu am ci bis sëñ saaliwu ni ko dama cee mës a am nattu am ci bis moo tax ku may waxal doonte ndaw la sax man maa lay wax baatu sëriñ da daam lu ma ci dalon te bëggatuma mu dal ma sama dund te ba dinaa la ko nettali sax musuma ko nettali kenn waaye tey lay bis bi njëkk ma koy wax daal ni bi may doog a ñëw mbuur damaa mas a def kaala naar kaala naar mooy kaala goog nga xam ni dañuy kaala ba seen gëj yi rek di génn nga xam doo mën a xàmmee xar kanam nee na boobu ku ma gis sax du xam ni man nee na ma téye sama kurus di wir di waxtu timis càll mbeer gu ànd ak ngelaw jaar fa mel ni lu ma gëlëm loo ba mën xam sama bopp gi ma génn nee na ma am ci jaaxle lool ma ne ah man de comme xamaatuma kër gi ma génne woon du ma topp njort di di di nattale naa laajte ndax sama tur siiw na su ma laajee sama tur ni lay kër sëñ Saliou Mbakem Sëriñ Touba faawu am ko ko xamoon ma gën looloo gën may natal nee na rek yàlla dogal ma ni kon naa dem laajte rek ne ma dugg ci genn kër gis benn client ci ëttu kër gi génn góor tëdd ci lay ndekee sëñ saliw rek la gëm sëñ saliw nee na xàmmiwu ma ndax sama kaala gi gët gi rek ay fay nee na ma ne asalaamaaleykum nee na góor gi ni ñokkat ne waaleykum salaam ma ne ko damay laaj kër saliw mbàkke fan la rek góor gi ni ma yow yëbaate wu te xamul ni man lay wax kooku day sa morom nga daan saliw mbàkke nee daal di ñëw ba ci man rek poñe ma nee na poñ sàllaaw poñe na ma lool neena na di may xecc ni ma koku day sa morom neena na ko tuub naa ko kër sëñ Saaliwu wax muni ma doxal ñu dem ma wan la keur waye bu ëllëgee bis boko ko fi lu la metti dina la ko def seigne saliw neena na ma ko maa koy tuub bu baax wan ma keur seigne saliw Mbàkke fa neena xamul ni man lay waxal ndax sama bët rek ay neena ma top goor bi ñu dox ba ag sama keur muni ni fi la mané ko jëre jëf né dal ni ñokket dal dugg ci biir ba tay waxuma ko ni man loolu moo tax ma yi leen kon oyofaay gi mu amoon bari waa na kooku bu doon moom ca saasalaan ko man ngay poñe de man la sëñ Saaliw su boobaa kooka day xaru waaye ndeysaan noonu la ko nëbbee ko ah maa ngi tuub di jéggul ne kon fan mooy kër sëñ Saaliw Mbàkke sëñ Tuubaa dañ ko doxal bi dem ma walla waaye bu ëllëgee boo ko waxee nii sàllalu ko lu la metti naa la ko def moo tax sëñ Saaliw nag ni man duma sàllalu kenn man sëñ Saaliw comme ci doon rek yërmande yooyu daan doxal sa digganteeg yow xam ngeen ni li mu faj ci àdduna li mu faj man gis naa ci ay professeur gis naa ci ay docteurs yu mag a mag ci hôpitaux yi gën a rëy sëñ Saaliw lañ am lanteel xëy gëm ko gëmin woo xam mënatunoo gëm kenn gis naa ci ñu feebar bañ ni c'est fini man ngeen cee indi fi joueur euh, acteur film boobu ñuy wax Steven Seagal moom la ñuy wax niko bi mu feebaree ñëw fii dañ ne ko mën ngaa fajoo Tuuba ndax bobu am na maladie boo xam ni c'est une maladie sidorale manam mo xamni ñak la aju ñakam du genn da dem ba ñàq bi dul genn ñu ko nak li man la ray mu daal wacci toba kéro bu mu ñëwé te mënta ñàq seet si sëñ saaliwu ngir mu ñaanal ko fi sëñ saaliwu tok la jël kaasu café jox ko bimu ko nané la ñak ci jabaay bi ci tok dem na ba gis bind dem na ba gis bind moom Steven Seagal wax ni grandeur mystique bi ma fekk sëñ Saliou mosuma ko fekk ci kenn nga xam ne loolu Touba la fajo foto yang ci ba tey moom Steven Seagal te moom sax ci diine bouddhisme la bokkoon waaye xam ngeen ni tawat jooju mu amoon sëñ Saliou moo ko dimbali naa ñu am jabe ñu tere leen sucre ak lu ci aju ñu ñëw mu jox leen lu sax sax suukar ñu jóge ca wér seen taux seen taux de fi daal di wacc ba normal te sëñ Saliou leen fajj gis na ñu am cancer dem ci sëriñ Saliou ñu jox leen app ñu dañ leen di faatu bu fajj leen batay ñu bindu batay ñoo ñoo ngi kon sëriñ Saliou ñaata la fajj ñaata la dimbali ci dundam ñaata la yéegal ci boroomam ñaata la fekk ca fañu nekk di fa mu xettali leen ñaata ñoo jaaxle woo ko ci bitim réew mu feeñu leen faj seen aajo ñaata ñaata kam kam kam kam loolu kenn xamul nga xam ni kooku sëñ Saliou rek a ko man yërmandeem li yàlla wax yanant bi sallallahu alayhi wa sallam نيكو فبما رحمه من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك لولو لا سيغ ساليو باي وون خيل با يرمد جي مو ام مستمر كين مستر دومويو كين كو نييو اك اديو بو اندي مو فاج كو خيبول كين جير يرمد جي لامبو وون تي جيمم بي تيدي خام جين ني وما ارسلناك الا رحمه للعالمين yàlla wax ngeen gi mbindeef sallallahu alayhi wa sallam yónniwu ma la lu dul nga nekk yërmande ñeel jaam ñépp sëñ Saaliw daana wax ni ku dul yàlla mi sàkk jaam ñi ëppoo ma ci jaam ñi yërmande nga xam ni fa la yërmandeem tolloo mu nekkoon xaw subu mag boo xam ni xettali rek moo nekkoon mission ci kaw suuf ñaata la xettali ñii ci tawat ñii ci jaaxle ñii ci ñàkk ñaata la créé ci ay milliardaire te mësta feeñ ci meloom dëddu àdduna lool boo ñëwee yére bi sëñ Saaliwu sol buñ ko jëloon di ko jaay ci marché bi ñaari junni suñ la waxul moom moo ko moom doo ko jël loolu yombul ci jooju dëddu àdduna loolu yombul nga xam ni yaqibu an kulli kawnin lil mukawwin yooyu sëñ Tuubaa wax ci nitu yàlla yi ni dañuy fàddu ci lépp loo xam ne dañ koo amal dem ci ki ko amal kon ñoom lépp lu mën a doon lu mu rëy rëy sëñ yi waroon na ko ginnaaw ngir yàlla mi amal lool yàlla rek a ko doyoon ci lépp moom rek la bàyyi woon xel muy jëmm joo xam ni su ko mbindeef yépp xamoon ñëpp bu ñu xëyee suba ak ngoon nekk ci biir kippaaram ngir jariñu ci moom te ku la nga indi da lay duyel ba nga fees ci li ko boroomam may ñi mbokkal sëriñ Touba wax naa leen léegi diggam ak sëñ Modou Moustapha Karim noonu la demee ak ñëpp xoolal diggam ak Cheikh Mouhamadoul Fadilu sëñ Fall sëñ Fallu de moo njëkk a wax ni sëñ Saaliwu am kuuf la waay am kuuf sëñ Falloo njëkk a wax lool ci moom ni ndax xam ngeen luy kuuf alaaji Baara Fàllilu ni ko bëgg naa koo xam mu ni ko kuuf mooy koo xam ni lam bi sunu borom bu tëggee ku nekk di kañu dafa rafet teggin yëngatu fi mu toog la waaye lamb ji lu mu guddee guddee mooy far ub lamb ji ni ko kookoy sëñ Saliou am kuuf sëñ Fall ko waxoon lool. naa ci doomi sëñ Fallu te mu dund ba tey moo ni ma alaaji baara fàllilu bi mu nekkee xalifa am na ci bis muy dem Saalum ñun ay rakkam ñu topp ci ginnaawam di ko gunge mu war ci auto bo xamni mom moom bar auto bi dafa ñimi dafa dafa ragal suuf lool auto alaaji bar dafa ragal suuf yom na lool bu suuf bare mu ngiro ñun rakam yi ko top sunu auto dafa ñimi suuf lool bu ngiro fen ñu top ci ginnaawam ci allu salum bi ak ni gannus gi di noy ñene bi ñewé ba ag ci benn béréb alaaji bar auto ma jiitu romb ci suuf si dem ta otoom daa ragal suuf ñun ñi oto ñemee suuf ñu ñëw ngiro mais loolu jaaxal na lool nee na ñu wàcc di ko taxaw di taxaw ba oto bi bañ génneel ko bi ñu génnee ci oto bi nag bañ génneel ko ñu tàbbiwaat ci oto bi toppaat alaaji baar keroog ba ñu àggee dafa muuñ ñi waaw yéen daa mel ni seen oto bi moo gën a ñeme sama oto suuf ba pare yéen ngeen ngiroo man ngiroowuma ñu ne ko mbacke kay xamna naa ne am na secret bo ci def war nañ ko war nañu koo wax ene alaaji bara reeni secret bi de wessul serigne Saliou dama ma a and ak mom fi ci jamono 1952 diko dawalal auto fi ñu tang ngeen tang tay fi la sama auto bak serigne Saliou ngiroo won auto bama dugg ak serigne Saliou keroog diko dawalal fi la ngiro won waye bi mu ngiro man naa wàcc keroog summi ko ba dese sous-vêtement àgg suuf di ko wàq di ko wàq ba pneu yi génn ma accéléré oto bi dawal ko mu génn ci ngiroo kenoon sëñ Saliou damaa xool mu ñëwaaw góor yàlla boo ngiroo ci àdduna ak àllaaxira ma may tey ngiroo ma bii moo gën a ngeen ni alaaji baara juróom at wala juróom ak lu topp dawalal na ko sëñ Saliou otoom keroog bi ko sëriñ Saliou yi wàcce da di ko wax ma loo gën a bëgg ma defal la alaaji baara ni ko tànnal ma yaa ma dàq tànn sëñ saaliw ni ko xilaaf ak sëriñ tuubaa maa ngi ñaan saabu bu waree àgg ci sët bi yàlla na nga nekk sët bi ci njëkk sëriñ tuubaa benn ko mag ba ñuy dox tey ba ñépp jiitu ko mu jot xilaafa ji xam ngeen ni mbir jaar mm, mu ni ko xilaaf ak sëñ bàmba gi sa bu ag ci loxol seut yi yalla na nga njëkkante alaaji baara amin ñew ci seigne fallu seigne fallu tak ci loxoy ne ko loola seigne saliw wax mané ne ko ñaanal na ma kat né da bëkk ci man né na khilaf ak seigne bamba bi sa bu ag ci loxo seutam yi na ci jëkke seddu ci sët yi sëñ ni ko wax na dëgg dana am de waye nak nang ko boole walé bu seigne fallu waaye ñaari xilaafa yi nga xam ñaar yëpp alaaji baara ko jëkke boole koku moy seigne saliw diggam mak seigne abdul ahad non la démé dañu bëggante lool ginnaw bi nu bokké seen mbokk bok nga xamni ño ñoo bokk lépp fonkante lool xam ngeen ni kër sëñ salim sëñ Abdou ta ko tabax ni kër gi ngeen di romb toba sëñ Abdul Ahad moko tabax ndax nee ko ko top ci dëddu adunaam ji bo leggé di nga la yok sëriñ bi ki ñepp ko wara taxaw ndax mom da dëddu àdduna al koy defaral kër gi ni mu ko koy defaral alaaji Ibrahima ñang bu mbuur dekk teves, tefes nyom jur ñoom Demba Sall ñang di jité won jaraf jur ñom dabbos ñang sa ñang Saaliw ñang min ñang bi jiite won sen Commerce Dakar seen bay ku jige won seigne Saaliw ak seigne Abdul Ahad la bi mu génné aduna 1987 seigne Abdul Ahad ak seigne Saaliw ñoy yobante yi ñu fa def ci deej ba yépp ci li jëm ci li ñuy xewlo ceeb ak nagag lu nek lañ joxe digal kon ku leen jige la won daf ci am génn guddii sëñ Abdul Ahad andak alhaji Ibrahim Ibrahima Ñang ñu dem ci kër sëñ bo ba kër sëñ sali bu da ngay xol ni ba sa bët fa mu yem doo fa gis mir nekkon wenn barak rek ak wenn lacc sakket wo xam daataan dar ne foofu bi ñu toogee noonu comme Alaaji Ibrahima Ñang dafa jigante sëñ Saaliw dañuy waxtaan tok ne melni kuy wit di len may nopp ndeke yo mu ngay wax ak mom alhaji Ibrahima Ñang ni sëñ sali mbàkk si kër gi xanaa ko soppi def ko tabax sëñ Saliou ni ko sàllaaw bëgg nañ ko sax xam naa fi ne jamono ni mu toll la waaye buñ demee incha allah ba jamono sopp bi nañ ko defal ko la sëñ Abdoulaye dégg loolu ba ñu génn ne El Hadj Ibrahima Niang tey neexal yow mi fexe ba ma dégg li sëñ Saliou bëgg na ko defaral kër ndax ciy bëgg a liggéeyal sëñ ba mu demee la yónnee béton ak la ci aju yépp ak suuf ak ciment ñu defar kër loolu la sëñ Abdoulaye kon sëñ Saliou noonu la meloon ak moom xam ngeen ni sëñ Cheikh Jaxate mu sëñ Amza moo leen daan yenn moo leen daan wat lu bari doomu sëñ Tuubaa yi ndax li tax loolu ñu koy taamuwaat ci moom baayam sëñ Amzatu Jaxate da daan wat sëñ Tuubaa di ko yenn sëñ Saaliw ñëw na fa bis mu yenn ko wat ko ba noppi fekk añ yi di war a sotti soxna May Mbàkke di doomi sëñ Abdulaat sëñ Seex Jaxatee ko yor soxna May togg na añ ba yekk ndabu sëñ Abdulaat mi mu war a añee ba ta ba takk ko fas war ko yóbbul sëñ Abdul Ahad sëñ Saaliw bi mu fa watoo ba noppi ni ko xéewalu ndaw ku ndaay busa busa yi ndax am na feewaay di laaj añ soxna may ni ko waaw Mbàkke xaaral ma indil la léegi añ dugg gis sëñ Seex Jaxate ni ko ah comme ku tedd wax na ko koy nañ jël ndabu sëñ Abdul Ahad li njëkk a jox ko ko rek te daal koy su daal toggaatal sëñ Abdul Ahad ndaba sëñ Seex ni ko ah matu ko moom kay ñoom ñaar benn lañ bu ci xéewloo ñu jox li def sañ Abdul Ahad wax ko ko noonu mu daal di jël ndab li tegal ko sëñ saliw sëñ saliw tibbu ci tibba ci tibbu ñetti tib daal di koy tëjaat ñu tubarkaal alhamdulillah daal koy jox ndab soxna may takk ndab li ba mu dëgër mu yóbbul ko sëñ abdulaat loolu bi mu ñëwee ni ko mbàkke li ciy niru lu ñu laal rek sëñ saaliwoo fa jaaroon joon ñu xéewal ci ñoo ko joxoon sa ndab li ci la doon bàkkee naka la ko wax sëñ abdulaat rek sëñ abdulaat ni ko soxna may waa ji sëñ saaliwoo xéewlu fii mu ni ko waaw mu ni ko dama lay neexal daal koy jox juróom fukki junni ni ko waaw góor yow yi fexe ba ma mus desew sëñ Saliou kon ñoom ñi mu bokkaloon Serigne Touba. am loolu la ñu bëggee. waaw am yéene ñaanal la. te lottu ci loolu ma def ko eh, rab yi gi mu taxawaay ko. ndeysaan am naa yéene jox la ay millions. waaw te am ma ko. yàlla na ko xasida gi wecc. na ko lool. am kaara gi. yàlla na sëñ bi weexal sama xol. ma man a jaamu yàlla ba faatu si jaamu yàlla. incha allah. jërëjëf jërëjëf yàlla la sëriñ bi taxaw kon ñi mu bokkal sëriñ Touba foofu lañ ko tegoon xam ngeen ni noonu mu mel ak góoru yàlla yooyu di njabootu sëriñ Touba di la soxla ak soxna yu tedd yooyu di njabootu sëriñ Touba waaw soxna ay satu gaawaan Mbàkke yéen ñëpp xam ngeen ko doomi sëriñ Touba soxna Astu Gaawaan ku yéeme la woon nga xam ne ku ko mës a nuyu mu jox la kafeem ko moo nekkoon taawu Sëriñ Tuubaa ci ginnaaw géej ndax bi sëñ bi jógee ci géej gi rek ki mu njëkk am ci Mauritanie mooy soxna Astu Gaawaan 1904 sëñ bi da koo fonk ba dañ demee ba dugg ci koor gi sëñ Tuubaa yëg ni mu ngi bëgg a ñëw sëñ bi woon a mag ñu ko jigéen ñi damay bëgg a am ñaari gan bëgg ngeen teralal ma damay a ñaari gan bëgg ngeen teralal ma ñaari kat yi mooy weeru koor gi ñëw ak soxna Astu Gaawaan ñu war a ñëw suñu koor keroog bi mu feeñee ci gànnaar Sëriñ Tuubaa gëléem la ko rayal ndax fonk gu mu fonk dafa lewetalal gëree gëléem ngir soxna Astu Gaawaan koo xam ne nag lewetal na gëléem ngir ganam gu ñëw xam ngeen fonk na lool soxna Astu Gaawaan soxna su Gaawaan daana am tawfiixi dajale doomi sëñ Tuubaa yi am na bis ñu ci bari daje ci kër gi sëñ Abdul Xaadir ñëw mu ni de mu ni ko demal defaral ma mbaar ma li sëñ Abdul Xaadir doon defal keroog mbaar mi mu ni bu kenn jàpp moom laa ko sant xam ni ku yéeme la woon sëriñ son yi bu daawu fa sëñ Abdul Ahad sëñ Murtada ñëpp la daan liggéeyal na ci bis mu ànd ak bi daw ba àgg ci kër sëñ Saliou daal di yónni chauffeur bi ko boo demee neel Saliou Mbàkke na ñëw wuyu sëriñam moo koy wax kooke ne ah mu ko ma nee nee ko Saliou Mbacke kay wuyu sa sëriñ na ko waxee noonu waaye bi sofër bi accès ni ko sëñ Saliou ah soxna su tedd si mën naa ko wax la wax nga sa sëriñ la soxla nee na mooy sa sëriñ sëñ Saliou daal di dégg ne ko moo la wax lii mu ne waaw mu ne alhamdulilah ndeke mat naa ko taalibe alhamdulilah am day ba mu yàgg ma laajaat ko bi nga ni nee na mat mat am noonu la meloon ak moom. noonu la meloon nag sëriñ Soaybu tax yéen ñëpp xam ngeen ni li tax sëñ Amza mi yéeme lool mu sëñ Soaybu bi sëñ Soaybu desee fan yu néew ci àdduna ci koor googu téeméeri ndongo ak fukk ak ñeent la dajale mu dëppoog limi saari alxuraan yi jox ko sëñ saari bi ni ko dama am yéene ci ñoom lool te doy loola ci lool ngir nga àggaleel ma sama yéene ci ñoom talaata la ko jébbal sëñ saari bi ñu tek ci ba al khamis sëñ señ yi bu genn àdduna dañ dañu laylatul qadr ba ci ëlëk ci fajar mu genn aduna ak lolou yéme 2007 talata ja 2007 talata ja saliw saaliw témir téeméeri nga fuk ak ñent jox ko señ am samu sëriñ son ko dama am ci ñom yéne bëgg nga àggaleel ma sama ba ci ñom talata la ko jox al khamis àjjuma señ saliw man mii yàlla dogal na nuyu ci sañ sëñ Amza fekk ndongo yi ko sëñ Saaliwu jox bindal ko ci temps bu gàtt wenn weer kaamilu alxuraan bi indil ko keroog sëñ Amza dafa tuur ay xéewal daanu jël kontaan ngir xam rek ki ko dénk ak ki ko jox muy sëñ Saaliwu sëñ Saaliwu di jëmm joo xam ni waxuma la nga wax ko sa aajo waaye nga gis ko rek sa aajo faj sëñ Muntaxa mii sëñ Muntaxa di xalif général des mourides ku dégg sëñ Saaliw moo tax xasida gi ma woy sëñ Saaliw boo ci demee ni mu gën a dégg arab nit ñi sëñ Muntaxa ni la gën a nit ñi sëñ Saaliw dani ko uhibbuka ya cheikhi sëñ Muntaxa bind xasida ko uhibbuka ya cheikhi wa musliha xaalina salaaxuka min ahlil ilahi mushahadu wa sulxuka maarufun lada nnaasi waadixun xayaatuka islaaxun wa dawman tujaahidu مصالحنا في الانقياد لقصدكم ونصرتكم في الله قبل ان تطاردوا وما نصرك المطلوب في كل كائن وحق في الله والله موجود داي منتخا نيك احبك بغنا لا صوبنا لا لول يا شيخي يو سما سيرين يو سيرين سالي يو ميغا خامني يا يا مصلحا لنا يا ييوينال سونو مبير ييب من بغنا لا واخنا دغ سيرين سالي و ديفار مبير ييب Nego ko salaahuka min ahlil ilahi mushahadu lewet bi ci yaw ak jam bi ci yaw ak yërmande bi mu ne ko ñi xam yalla ñepp seere ku mus yalla rek nangul na lon sëñ saa ni ko ma'rufun ladan maarufun lada hayatuka islahun wa dawman tujahidu dañ mun taxaa ni yow señ salim de labir ak yërmande jek mana bir gila yalla jox leer na nañ ci képp ko am xel nit ñëpp nangu ni loolu moom yàlla la ko jagle taqoo nag jihaat fi sabilillah yow rek ndax bu leen fàtte ni sëñ Alioune Touré bokk ci mag ñi ñëw na ci sëriñ Touba bis ni ko duyal ndaw ñi mbàkke mag ñi fees na lu del duy nga leen ba nu rembat kañ ngay duy ndaw ñi nag mag ñi doyal nanu sëñ Touba muñ ni ko dinaa duy ndaw ñi su ma di duy lay sëñ Saliou rek a toog 1990 ni jox leen ma ndaw ñi ma def ci ñoom la Serigne Touba daan def ca mag la loolu wax la di mbokk yi mag ñi beneen affaire la mag ñi koo ci dugg rek yéemu ci yàlla may gi ko yàlla jox ak tawfiix yi mu am ci sëriñ kon su ne jox leen ma ndaw ñi ma def ci ñoom la Serigne Touba daan def ca mag ña ah sëñ Saliou dafay sëriñ Touba mu wane ko ci tooli xelkoom yii yéen ñëpp xam ngeen ni tooli xelkoom yii wane na ci ni mooy sëriñ Touba ndax tooli xelkoom yii de lu jiitu mu ci woote lim ci woote sëriñ Baara jenn taawu maam Cheikh Issa jenn borom jenn ak lagat te ku ne xam ni sëñ Baara jenn moom làq na ngërëmu Cheikh Issa jenn mi baayam làq ngërëmu sëriñ Touba mi ko yar di sëriñam làq ngërëmu rasulullah làq ngërëmu yàlla mi ko sax ndax loolu sëñ Touba ko wax bis moo ni ko Baara jenn gërëm naa la yàlla mi la sàkkoon gërëm ne la bi sallallahu alayhi mi tax ñu sàkk la gërëm ne man sëriñ Touba mi nga yaakaar gërëm naa la dellu ci sa baay Cheikh saa Dieng mu gërëm la te su la gërëmee maa la gërëm ndax Cheikh Issa Dieng góoru yàlla la sëñ Baara Dieng moomu day dikk na fii xel koom nekk bis booba sëñ Saliou xaajagul ba koy woon mu daal wàcc ci suuf si ni chauffeur bi na taxaw mu wàcc mu sukk ci suuf def fa ab biir mel ni ku fa julli barkelu ci suuf si ni aka neexoon yàlla baaxee ba ma fekkee jamono gis sëñ Touba di jël siwaat wote ci all bu mag bi ko fi ñaqal yalla jéggal señ salu ñëwaat wote fa ko ne di fàq di ko fa pek te ko ñëw sa aajo faj mu defoon koo xam ni daana wax ni man de kenn duma liggéeyal ma jaawale sa pay ak kama defalul dara ku ma liggéeyal xam naa li yàlla ci yow xam ne ma lay fay señ salu duma jaawale jenn jëf ak jëfi moroma loolu la daan wax àgg na ci ndongo yi mu yilif yëpp noonu la leen xàmmee ku leen rax mu xam daana toog ba xaaju guddi mu ni nii tors bi am na bis mu def bi mu tay mu joxoñ ko benn tul tànk ne ko ana foo jóge mu wax ko fa sax ci ginnaaw daaru ko mu ne ko bokkoo fi de mu ni waaw mu ni ko waaw mën ngaa dégg nga xam ne njabootam da koo saytu xam am na ci bis sax mbiri ndonga daara dal ñenn ci ndonga yi ñu ni fi sëñ Saaliw toll ci at daal war nañ koo jàppale dimbali ndax léegi jëmee na ci mag boo xam ne mën naa am dootuñu ràññee ni ñu ràññee woon bi ñuy ndaw ndax dañoo yàgg ci loxoom ñu koy dimbalee nag ku nekk bind aw turam def ci fotoom ni taalam tegal ko ko lépp nga xam ku mu liir saw tur xàmmee la ña ko wax de seen wax dañuy wax ca yoor yoor ba guddi jotee fañ ko doon waxee fu sori sëñ Saliou la waaye ca guddi ga la sëñ Saliou yónnee woonu kenn ca ñoom ba mu ñëw sëñ saaliw ni ko sama ginnaaw kees gi may nekk day daa mel dafa am wundu muus moo xam dafay am njaboot dama am ñeewantal ci ñoom lool bëgguma ñu lool te mu mel ni bu guddee dañuy sax ci ginnaaw ma leen di dégg ma bëggoon ku leen tuxal yóbbu leen fu ñu gën a nekk ci jàmm te kenn bañ leen a lool ndax ma xam li may def kooka fàtte na seen réunion bi ñu def ci suba te ndonga la yi ñu doon wax sëñ saaliw ndax dinañu xàmmee fàtte na ko moom mu daal di génn dem ci ndigal li ko sëñ bi sant dem di jël muus yi di leen tuxal bi mu ñëwee rek xam naa lu muus yi mu xaw ko jalax ak tànk mel ni koy football dégg kàddu sëñ Saliou ci biir kees ga mu ne ah noonu ngay def baax lu tax nga leen di football jëlal bi nga xam ne dafa ñuul am tupp tupp yu mboq yi soo ko jëlee jël nday gi bi weex bi dina ci topp beneen bu xaw a dóomu taal bi topp def leen loolu te bu leen lool te guddi la mu len di jël di yob bañu mak ñu mag mu jël sëñ Saaliw ne ko def na mbacke li ma santone seigne saliw muuñ ne ko xana ki dul jaawale wundu yi ci lëndëm ko tar gog lu jaawale jabot bopam gi mu yar bañu tut tank batay ba tey kon daawul jaawale genn jëf ak jëfa morom fu ko ñakkal ma fayal cheikh seex mi lo ci mëna deg dañ ko defal xaas ta mo dem ba at bu dul ko seigne saliw defal rek ndax loolu dafa jéggi bop te moo ko fàggul boppam ndax moom kat mës ta jàpp sëñ Saaliw boole ko dara moom rek la gëm am na ci bis bopp sëñ Saaliw dig na tuut tànk yi bëgg leen defaral ceeb bi ceeb bi jën yoo xam ne jën yu mag la leen di daa leen toggal ëllëg ceeb bi jën yu mag donc nga daara yi kontaan àgg ci sax ku ne di xaqataay di tàpp sëñ Saaliw dinañ defal suba ceeb bi jën yu mag ku ne di wax te ëllëg sa mu yónnee commande ci port bi ngir ñu wuti jën yu mag yu mu leen toggal ñu dem di wuti commande bi ndeke yoo daa am ay étranger yi fi soxla woon jën yóbbu yóbbante woon seen commande ci port bi ñu ni jën yu mag yi yëpp presque jeex nga xam li mu soxla pour 15 daar yëpp mat mënatu ko am keroog ba ña mu yónni ñëwee mu xool leen ni lu xew fekk booba 10 heures jàll na jëm 11 heures jëm midi lu xew. ñu ne ko mbàkke xamuñu nuñ la koy waxe mu ne lan la yow kat da ngaa digoon tuut tànk yi da nga leen toggal ceebi jën yu mag joxe sa commande dem nañu ba port Dakar waaye daa mel ni jën yi daa am ñu fa amoon commande mu jiitu fa ba far nañ ko yóbbu keroog dañu hmm, sàllaaw man de baaxoo may dig kenn dara loola di loola di tux lu ma digee dinaa ko def te tuut tànk yi maa ngi ko dig ba seen yaakaar ñu wékk ko ci du ma tas mukk ko yaakaar ma ne sëñ Saliou fi mu toogee mel lu ci amuk jaaxle nu muy war a def ñu seen ay camion seen 21 bu mag mu duy ay booli yoo xam ne ceeb yi jën yu mag dañ koo def ba mu fees dell ñu wàcce ko ni ko seex beecoo la ko ziyaare ñu ne sàllaaw nii moo ko bette moom ci aajo moom xam ne bett na dafa dee wett sëñ Saliou kon manees na cee xame loolu sëriñ Saliou yàllaa ko jox jamono ku ko ñaqal tedd ku ko bëgg tedd ku ko liggéeyal tedd ku roy ci moom tedd koo mën a doon nga saafanteeg moom lu mu la yéene sunu borom defal la xam ngeen ni sëñ daam njëgéen dëkk fii Cees def nañ délégation ñoom ay mbokk lañu yuñ bokkal diine islam bokk ci taalibe cheikh di nit ku baax maamam di wàllu keroog ba ñu seetee sëriñ Saliou sëriñ Saliou jox leen ay xéewal ngir ñu xéewlu ca daf caa teg ni sàllaaw lu luñ ci fas yàlla dina leen ko defal ndax tey nii ñu dundale lislaam dundale ko ak mbokk ak diine dégg naa ci bigin woo xam ne tey lu ñu fas ci xéewal yooyu yàlla dina ko def nañ xéewlu bu baax ndaw lii sëñ Saaliw yu yónni dem ni leen lu ngeen ci fas ngeen ko am nee na mu ne ah sëñ Saaliw woo ko waxa waaw moo na ko yónni de mun dama koy laaj ba xam moo ko wax su dee moo ko wax ma fas ci bañ a dem sawara la ndax ndax xam gu ma xam seigne Saliou dikki ne ko mbacke dama deg nga ni ya wax ni luñu fas ci ndab yi dinañ ko am muni sikul mako wax ndax samay gan ngeen ñu bokk li sama leen di teral ta gan dañ koy teral te deg gi ma ci bég lu ci way fas suñu borom dina ci fekk inshallah muni kon mbacke ngi fas ëlëk mu ci sawara ndax ragal ñu ko lool seigne Saliou ñu ko mat ci fas man seigne Saliou ñu naa bokk ak benn julit jamono ëlëk ma teew yalla diko lak ma teew kon foofu la àggoon ci ñépp mu yéene leen aw yiw diggam ak tarixa yi fa ne teraangaam di dem fa mu ngay yónni sëñ Saaliwu Ture Canaba mu ngi koy yónni Njaasaan mu ngi koy yónni Tiwaawan mu ngi koy yónni ca sëñ man Baro ca Mbuur mu ngi koy yónni ca famille Combaan dégg nga wax ca Morola fépp la daan yónni ngir rek dundal diine ji 1982 sëñ Abdul Aziz Dabakh fekk si na ko ca bar tisbaar jot mu ni Abdou demal nga jité julli sëñ Abdou ni ko demal nga jité mu ko demal nga jité mu ko demal nga jité sëñ salim ni ko damay ñaan bo ma ci maye aw sart ma jité mu ko lo ñaan ndak may na la sëñ salim ni ko kon damay jiite tisbaar yow nga tak sa ma jité timis nga jité geñu door ñaanal xol rafet loolu doxon seen diggante te këru diine yépp noonu la am lanteeg ñoom noonu la daan jëf jëflanteeg ñoom di yërmande joo xam ni daa jeex tàkk ci borom yërmande ji àgg na ci daayira boo xam ni ay dawalkati fas lañu dajaloo yóbbul ko seen addiya mu ni li muy bari bari di neex li ma ci gën a ñor mooy ngeen yóbbuwaat ko di ci toppatoo fas yooyu jur gi ba benn bañ ceeloon bu ñu feebaree ngeen faj yéen looloo ma gën a li ngeen mën yërmandeem ci lépp la nekkoon kërëm googu ci miir bi am na ci bis mu ni maçon bi liñ tabaxoon nañ ko toj loolu xaw leen a jaaxal ndax birig bi ñuy toj dem nañ ba teg lu bari ci kawam mu ni sàllaa jurul ma ci yàq de ndax yàlla daa bañ yàq waaye damay bañ jël lor rek biñ ko tojee ay gunóor génn ci mool bi nga xam ni raaxoon nañ ko mu ni sàllaaw boobu ba ñu ngi jàmbat seen seen tawat kooku te sama kër gi ñoo ma teree nelaw kër gi bëgguma kenn di fi lor ndax ñoo ma teree nelaw kon kooku yërmandeem àggoon na ci fépp sëriñ Saliou dëddu àddunaam jaaxal ko mu bokkal jamono xam-xamam raw ko bëgg sëriñ tuubaam li mu koy gën a jege ñëpp bu tuddee ñaari baat daal di tuur ay xéewal soo ko waxtaanalee ci sëñ sa sëñ tuubaa ñaari baat mu tuur xéewal jeex tàkk ci maam Cheikh Ibra jeex tàkk ci maam Cheikh Ibra Fall nee bi muy am juróom ñetti at dem na ziyaare ji maam Cheikh Ibra Fall dama juróom-ñetti at la nee na sàllaaw bi ma demee ci njoowaan la ma teg di ma xool rek nan na xeetu suñ bàmbaag may xeeñ de la ma doon xeeñee ca mbaax ba may jébbal moom laay xeeñtu ci doomam ji niróo nañ lool te Cheikh Ibra Fall di wax lool nee na may xalaat sama xel mbaa su may ñibbi comme damaa génn ca daara ji tàggoo ma mbaa sama baay si Ibra Fall du ma booleeg mbooloo ñu may gunge suñ ma gungee rek dinaa feeñ te eh, ma dangay bañ ku la gunge sëñ Saliou mais eh, daal di muuñ mais eh, daal di may jox mat xaalis bu bari boo xam dund nañ ci at mënta jeex mu ni waaye keroog jàpp naa ci ni ñaan loo na ma ni ma nag ma ñaanal may liggéeyal sa baay ba ëllëg sama bàmmeel di liggéeyal sëñ Touba sëñ Saliou ni sama ñaan googee de nangu na ndax at moom sëñ Modou Aminata Fall indil na ko juróom benn million mu jële ko ci xabru maam Cheikh Ibrahima juróom benn million lañ jël ci xabru si Cheikh Ibra Fall yóbbul ko sëñ Salim mu ne kan sama ñaan nga nangu na ndax Cheikh Ibra Fall ñaan loo woon na ma ne liggéeyal sëriñ Touba ba ëllëg bàmmeelam di liggéeyal sëriñ Touba kon bàmmeel bu ñu a dajale juróom benn million indi ko sama ñaan kan nangguna? ci sama baay Cheikh Ibra Fall loolu la bëgg woon maam Cheikh Ibrahima Fall Babou Mouridi kon yàlla nañ ko yàlla fayal te yàlla taaf nu ci barkem yagal fi am sëriñ Cheikh salim te yàlla na nu yàlla gën a xiir ci bëgg sëriñ bi ak di ko liggéeyal ay ndaw ngeen nekk ci buntu àdduna sëñ Tuubaa li mu digal ndaw luy dugg ci àdduna dara gënu ci xam-xam ak njub xam-xam njub soo ko amee am nga koom-koom bi gën a rëy sëñ nee na dafa am bis may seet benn baat lu muy war a firi ci mun jiit mooy dictionnaire ma dem abbu serigne Touba dictionnaire ngir xol bak neena serigne bi ne ma fadilu mani ni muni xoma ban bak ngay set waye man ahmad neng ma xol bak xudan ju neena ma ubbe rek yem ci xudan ne ko mbàkke da mel dañ don xaar de muni ma yakar na ko mos ni ma faadilu ko mbàkke muni bak bu ngeen di wër bax na waye baatu xudan na ngeen ci lu mo yor lepp tay ak njub ko tay ak xudan njub mo yor lepp ngeen ci gor mhm. ko seigne Fall mu ni ko mbàkke sëñ tuubaa ni ko ndax garab bi ñi wax ron xam nga ko ron ron mom kenn du ko jàngal dëkk ci kaw da xam nga ron mu ko waaw danaa koy rom waaye uma ci xam-xam na sëñ ni ko ndax ron mas gagis gis benn xale bu leet benn xale bu të bu ci jànge fo ak da ci jànge yéeg mu ko musuma koo gis mu ko li ko may ron mooy ron daa jub xocc jëm ca kaw xale du ko fawe kala yaa ngi fo ci garab yëpp di ci yéeg bu mu des ron naka waroon dafa jub xocc moo ko may ku jub xocc kenn du la fawe ah. da ngeen ci góorgóorlu am na ku ñëw ci sëriñ bi ni ko sama ndey dee na sama baay dee sama nijaay dee amatuma kenn yow rek laa am damaa bëgg a ñëw toog ci yow mbàkke def la ndey def la baay def la nijaay sëñ bi ni ko loolu jarul toog fenn kaay ma wax la nooy def da ngay jub dellu ci kër ga soo demee nga jël jaamu yàlla def ko sa baay nga jël liggéey def ko sa ndey nga jël doylu def ko sa nijaay te ngay ñëw di ma kon fa la lépp nekk na góor góorlu ci nangoo jàng góorgóorlu ci nangoo liggéey góor góorgóorlu ci doylu fonk seeni wéyjur fii de ku fi bokk biib dëkk am nga royukaay bi gën a rëy ci royukaay yi muy sëñ Mandum Ndaxa Ba fii ku fi sa tànk am nga ngërëm li gën a rëy ci ngërëm yi ndax li wér te mooy lépp lu ñu màndargale sëñ Mandum bi sëñ Tuubaa gërëm la loolu moo xam naa ko baax mm-hmm. ku dugg ci moom it raw nga ndax man li ma gëm te muy li wér ëllëg sëñ Touba du njëkk a séddi kenn ci kaw sëñ Mandoumbe loolu mënta nekk ndax li sëriñ bi daan dunde àgg na ci mbay gi muy dunde ci këram sax sëñ Mandoumbe koy fàgg di ko jox mu ci dund moom njaboot mu gërëmee ko nu nekk fàggoo ko nu nekk yare ko nu nekk jox ko xéewal bu nekk jox ko barkeelu bu nekk seen njaboot yi jeex tàkk ñu bokk lépp kon ku ci bokk fan ngaa fan yàlla nañ ko teewaat yeneen at kenn bañ wuute ci barke sëri bi yal na yàlla faj aajo yëpp guddal fan yëpp wéral cër yi téel nu sunu taali de yàlla ba ko dara rax yàlla yàlla def jàmm sutura xéewal te faj aajo yi képp kuy dégg rajo bi yàggal fi seen Ibra Khoudia baax ak mbooleem njaboot ñu ngi baalu ñépp xaq ñu ngi baal ñépp xaq maa ngi nuyu sëñ Ahmad Mbacke mu sëriñ taala bu baax waaw gëj nañu gise sax waaye muy ku baax gis la ko rakk yi nuyele ma ak moom ñoom sëñ soxna maam bu soog ñoom soxna bint waaye muy ku baax maa ngi koy siyaar bu baax di nuyu waa dëkk bi yëpp ak kilifa fi nekk yëpp waa kër yëpp rek ñu ngi leen di nuyu waa kër sëñ mëndumbe ñëpp rek di siyaare ñëpp di leen baalu àq di sàkk seen ñaanit bu baax yàlla nañu sëriñ bi defal dégg ak topp sëñ mën taxaa yàlla fi yàgg te jërë ngeen jëf waa waaleykum salaam wa rahmatullahi wa ñu ngi waaye xam ngeen ne waxtaanam daal di gën a amee force bi sax waaye